loolu ñu waat jox ñun suñu credo moo mus a nekk li ñëpp bokk na si ñëpp jot incha allah ku ci nekk liñ ci am égalité moom mënu am ci àdduna mais équité yaakaar naa ni mooy li jub ku nekk li nga tollool nga jot ko te loolu amuñ ci benn werante li ki des nag mooy engagement bi mooy la partie citoyenne gis nañ xale yi tàmbali ko jamono yi wees tàmbali ko démb fan yëpp di bale mbedd yi di taxaw di liggéey bi donc jàpp nañ ku nekk danga nga war a jàpp ne yaay président Diomaye parce que tamit projet lañu yor yoruñu ay nit Le projet bi bu ko protéger dañ koy protéger jusqu'au bout donc Pikine war na bokk ci les premiers défenseurs du projet. parce que projet bi li ci nekk ñun ñi nekk ci bànn daf ñu amal njariñ li ci nekk ci wàllu assainir ay li ci ci territorialisation ay Pikine les territoires de développement li ci nekk ci wàllu emploi ci wàllu capital humain former ay jeunes teg leen ci anam yo xamee ne bi nii former ay jigéen teg leen ci anam yo xamné dinañ am financement dinañ am formation té dañ mëna yor sen bop même bu dee auto emploi la parce que xamnañ xam mënu ñu employé ñëpp ci comme ni ko xalaté suñu ñu suñu magi doon ko xalaat yaakaani état mo wara jël ñëpp état teguñu ko pour muy créer ay emploi dañ ko teg pour mu créer ay conditions yo xamné da koy may té nak nek nañ aussi ci département bo xamné ci walu artisanat amul fenn fooy laal du menuiserie du gara du du du amul fenn fenn fooy lal ba nga mën a dans l'artisanat artisanat Pikine mu ngi ko guenné luñ fi réaliser luñ fi teg boo xoolee doomu Pikine ñoo fi tek donc japp nañ am nañ ay secteurs potentiel yo xamné avec des incubateurs on peut faire une différence énorme sur la partie jeune parce que moi premier challenge bi nga xamee ni côté, am nañ ko té inshallah nañ ko taxawal. bi tamit coalition bi dina liggéey ci ay concertation suñ jógee fi déjà dëgëral coalition mais en même temps commencer xalat ci jafé jafé yi nga xamné ne ñoo jump, a ak solution yi nga xamné doomu Pikine ci mom génné won nañ ko ñu wat leen ko ñu ramassé won ko ci campagne électorale bi wat leen ko ñu waxat ñu ko ñu tënk ko document mën ko jox ñi nga xamee bi ñun lañ andalon ba tegg leen ci bopp nguur gi nga xam ni kenn du fi nekk naan xamuñu woon li am pikin wala li fa soxla ñu fa soxla woon te loolu yaakaar naa war nañ ci suñu xel aussi war na ci del leneen nag lim jëm mooy dynamique de changement dynamique de changement nekkul dara lu dul loo xamee ni bi nii coppite ba nit ñi seen dund yi ñu amoon mu nekk dund bi gën biñ nekkoon loolu mooy changer changer du ay wax kese dynamique de changement du ay soppi nit indi ko xees tek fa ku ñuul wala indi ko ñuul fu gat wala indi Ousmane changé ko ak Modou lolu dynamique de changement changement bi ñu gëm moy un changement en profondeur ci dundu doomu Sénégal bu nek ci dundu doomu Pikine bu nek te lolu tamit yaakaar naa ni suñu credo donc di wax wa Pikine nañ ñu gungé nañ ñu jappalé dañuy doog ñew nak mëno ñew nga ne lepp da koy def en un jour mais pare nañ te incha allah ci fan yi ñëw di ngeen gis ñu posé acte yoo xamee ne bi nii di ngeen xam ne ñii seen bopp taxu leen woon jóg te yaakaar naa ni balaa ñu fay egg ñi xam ne suñu bopp suñu bopp bu ñu taxoon jóg kon dañuy resté rek ci Ousmane Sonko kese mooy suñu candidat te tey yaakaar naa lu waay am koo xam ne fal nga ay maire fal nga ay député fal président de la république président Ousmane Sonko kenn amatul fayam kenn kenn amatul fayam kenn mënu ko wax aussi Bopam Moko ko tax kon sinon position yooyu am na ci yoo xam ne mënoon na koo wala mu sacrifier parce que tamit du Kassel, kese de am ñu fi nekkoon am ay position yooyu mënoon ko jox ñeneen insisté ci sen bop batay ba far lepp yàqu mom mu gëm ni mom bopam du dara projet bi moy mbir mi te projet bi lañ tek ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di demander tous les jeunes tout le département de Pikine comme un seul homme ñu nekk autour de lui yàqkat yi dinañ bëri jaxasekat yi dinañ bëri parce que ñëpp xam nañu Sénégal di doxee mais ñu am kattanu taxaw protéger ko aar ko ba mu mun a egsi fi mu li mu bëgg a def nga xam ne bu sottee incha allah Pikine da ci gis boppam donc loolu mooy kaddu yi nga xam ne coalition bi par ma bëggoon nañ ko partager ak nit ñi wax leen ngërëm gi ñu am ci ñoom am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ngërëm gi ñu am si ñoom ci taxawaay ñëpp xam nañ bu doon ñun ñuy def politique kese du sotti mais ñi nga xam ne kenn xamu leen Nous sommes ay militants wala ñu nekk ay population simple toog dégg suñu discours gëm ko mu jaral leen suñu ko ñu ubbi balcon taxaw ci kaw du yuux ba ñu wala ñu ñu daw donc ñun population Pikine amuñu seen fay incha duñu leen décevoir duñu leen et on fera face à vos problèmes on fera face à vos préoccupations pour indi ci incha solutions yoo ne dina dox fii ak juróomi at du victoire di jubilé. ñun lu ñu gëm mooy bu ñuy lu ñuy ñaan mooy bu ñu demee ba pare pouvoir bay dem remerciement yi population yi ñu am loolu nag ñun ñoo koy liggéeyal suñu bopp ci diggante bi ànd ko ak yéen population yi ak képp koo xam ne am nga benn xam-xam wala benn xalaat nga ñëw indi ñu ko képp koo xam ne yor nga CV boo xam ne yaakaar nga ni bii soo ñu ko présenté dina tax ñu gën laa xam boole ci liggéey bi ubbi nañ pour doomu Pikine yëpp Pikine yëpp nag laa wax waxuma ñi nekkoon ak ñun ak ñi nekkuloon ak ñun coalition bi tamit woo nañ ci ñëpp mooy ñi nekkoon ak ñun ba ñu nekk fii ak ñi nga xam ne nekkuñu ci woon aussi ubbil nañ leen ko ñu yaatal ko incha allah jox ndam Pikine ndam li nga xam ne ndam loolu la bëggoon jërëjëf. Euh, pour la question des victimes moom euh, dinaa ñëw après ci leneen li koy complété mais li ci gën a am solo mooy victimes yi surtout ñi nga xam ne dañoo ñàq seen bakkan ñoom ñoo ci gën a metti te boobu yaakaar naa buñ koy xayma. li ci li ci population yi di gën a wax ñun bëgguñu xam dara loolu ki ko def mooy justice. parce que wax nañ dès le début ñun ñëwuñu pour fayantoo mais quand même munoo yor réew te loolu def justice pour man réew moo xamee ne bi da nga ko fekk ay tort te maintenir la justice.